mbokk Samagal mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci quatrième quatorzième édition foar Alep fi ci Touba Mbacké euh, tay nak ma ngi taxaw ci bergerie bo xamni kilifa gi mom moy moy wax fi may ban bergerie ak mom moy kan kilifa gi ziar la. ñi ngi delloo ziar ñi ngi lay bëggé di ziar. tur bi la contane ci yeen baax baax bayzal la. bayzal waaw bayzal Touba. ñi ngi nek ci bergerie Comme des deux partenaires. waaw yor fii ay sujets yu mucc ayib. waaw wax dëgg yàlla moom indi ci pour exposer ko. pour gars yi mën gis produit bi ak li ñu la mooy des deux partenaires lu waaw loolu dafa man ak sama tonton di sama xarit muy waaw ñun ah. tax bi ñu ko des deux partenaires. Ah, voilà. kon berger fu mu nekk. bi ah. euh, Lansar. quartier bu ñu naan Lansar nekk ci biir Ndaamaatu. Ah. foofu la bergerie bi nekk. ok bokkul euh, kon euh, bergerie bu nekk Mbour nag boobu. waaw boobu bergerie mythique la. mythique waaw. boobu bergerie mythique la bu Ligue Nicolas yi waaw bii deux partenaires. voilà. <laughs> tey nga indi ma sujet yu rafet macha allah. Mm. Euh, presque foire bi nga nga indi fi exposition boo xam ne doy na waar. Mm-hmm. kii mooy kan. kii mooy Île du Saloum. waaw di doomu Saalum Saalum ak Calvin Club. waaw di maal boo xam ne wax dëgg yàlla production bi ñu indi fii. Uh. gars yëpp apprécier nañ. mu doon xale nag. commencé produire ñu jox ko uh. famille yëpp mu tëb leen. Uh. mais wax dëgg yàlla am nañ ci moom yaakaar baax a baax. ak doom yi mu defagul nii. ñaata mois la. waaw ma ngi am 19 mois. 19 mois jóge Juga Touba Ndamaatu. Ndamaatu waaw ci kan. ci bayzal Sall. Uh-huh. waaw waaw ba am ñaar ma ngi jël. non ki bi ma koy jël nak muy doon xalé day soga fer rek 3 mois. Uh-huh. Uh-huh. voilà. Idrissa Sall ça na de. waaw trop trop torop macha allah yàlla non dougul concours mom mom du ko concours lo ah, voilà dama koy indi pour liguey ak mom gaay gis produit yi mu jur. waaw mën apprécier dal voilà. box bi mu and fek eh, ñetti femelle. ak ben eh, mboté noo ma leen voilà box bi ànd na fek ñetti femelle. bu dee kële. waaw noir et blanc bële. sëtu Abdou Fall moom moo ko jur. mais yaayam doomu docteur Fall la. Ah, doomu docteur Fall boobu yaayam borom baat bu weex voilà doomu docteur Fall boobu yaayam doomu la. kii tamit famille bi doomu. weextaal bi tout blanc bi. voilà tout blanc mooy or blanc. voilà moom doomu Moxsin la. mais yaayam doomu Boy Badu la. or blanc bi xanaa bokkul ak bi bi woon fële. non non moom. beneen or blanc waaw bii concourul ma ngi ci. deuxième portem nii la ëmb. voilà beneen bi di doomu saalum saalum moom it di doomu docteur Fall. voilà mbote ba mbote bi di doomu Ile de Saloum. moo jur ban euh, moo ko muy Mama Africa. waaw waaw. Mama Africa moo waaw. ma dem ci portem ok deuxième ba ma fekk fa jërëmaa bu rafet moom it. Mhm. moom waaw kooku moom mooy euh, jàmmi réew mi. Euh. doomu Île de Saloum la. mais yaayam doomu Noreyni la. ok Noreyni doomu Karlo di maa ko juddulu woon. ah foofu mooy. pénigré mu nekk ñaata moom ma ngi nekk ci 6 mois. ah 6 mois lay soog a. waaw mooy kan waaw trop kooku mooy jàmmi réew mi. jàmmi réew waaw jàmmi réew mi la moom ku ko gis. waaw 6 mois doomu Île de ma ma euh, fóoyul maro ba topp ca ginnaaw. kooku mooy bébé Aïcha. di yaayu gaynde ah, gaynde moom xam naa léegi jëratul ñu koy présenté Sénégal ñëpp. xam na waaw gaynde bi nekk ci Siré ah ki mooy yaayam di doomu salum ki moy yaayam. macha allah waaw waaw. loolu mom cheikham tamit en plus ma fi. ah cheikham moy kan wala cheikham moy femelle bi Yande Koddu. Oh.